naa. ayca bisimilah. Modou Fall maa ngi lay nuyu. ak nga professionnel yaa caat fenn da gay gay njóor ba si baa jigéenu ngeen baa lay ziar bu baax a baax sama wàll yu jigéen bi. Hmm. Modou Fall. tey nag bee boo mu waxati ba lu ma neex. Hmm. ki ci plateau bi rek kilifa gi. yow kilifa gi rek laa rus yow kay yow waay man daal Salma. Hmm. lii xamu nu ma koy dundee tey rek. dëgg la waaw mais daal yàlla baax na. comme man nee na anti góor. bëgguma góor ñi maay def lii góor ñi senegale yëpp tax na fu ma rob ñu ne ma anti góor anti na baax na jërëjëf mhm. mais chaque jour rek ñoom lañ di nañ leen di euh, joxañ baaraamu tuuma ndax li tax mooy sàcc ay dafa doon loo xamante ni seulement mhm. bokkul sax ci grandeur góor mhm. <laughs> bokkul ci grandeur du fulla te du fayda tayit day tas sa kër dëgg la nga jàpp ne heure bu sa kër tasee rek yow ku góor ki yow yaa ko tas ca nanga ko tasee mhm. yow sa aaw moo aye mhm. nga sàcc dem jox sa ñaareel mhm. wala sa ñaareel aye nga sàcc dem jox sa troisième femme ba ci quatrième yow yaa xam lan la jigéen jigéen la rek nanu yemale naam yéen suñu kilifa dañ leen di tarbiyu koroog ñu sàngoo suuf waaye ñun dañeen a war a nekk tamit suñu référence yéen góor ñi parce que nag euh, ginnaaw bën la muuree nga génn dëgmal faneen mhm. bàyyi sa kër ndey bàyyi sa kër baay boo eggee bëgg nga sa jëkkër jàngaatal la diine teg la ci yoonu siraatal mustaqim mhm. waaye góor guy sàcc ay defe naa matoo lan lan la doon doyee mhm. ndax boo ko matoon rek donc di nga di nga gis sa sa soxna jàdd wala say xarit wala kenn jàdd nga woo ko yedd ko ni ko neenoo papa du nii parce que jigéen jigéen la rek. Mhm. waaw la la biteel ba def rek la saañ bay xeeñ. ginnaaw tey nag bés bi dafa xaw kii rek dañuy dañ émission bi il faut ñu comprendre. Mhm. parce que parce que sàcc ay li ci nekk dafa bari mais lu bari tey jii ku ci xam nga ne tey jii dañoo ne si naqar. Mhm. du ñu mën a du ñu du ñu a toj yax bi carrément. mais dinañ ko def continuité. pour ñi nga xamante ne euh, dañuy sàcc ay bu nekkee ni doonul lu gën ñu bàyyi ko. lan mooy mais lan mooy sàcc ay d'abord. Euh, sàcc ay mooy ki nga xamante ni tey jii man aawalaa. Mhm. man maa aye sama ñaareel ayewul. Mhm. ñu jël sama ay boobu noonu sama deux jours yoo dem féete sama ñaareel. d'accord mbaa xam nga ne doom ju xaraam bu ñu jógee daa am loo xamante ne euh, dañ koy wax naan doomaraam nañ ma baal ci kàddu gi du du saaga xam nga loolu loolu la olof yi jël nañ ne ne doom joo gis doomu raam la ndax xale balaa muy taxaw day raam doomu xaraam waaw xaraam la ñuy wax donc foofu nag dañ fay dagg euh, jox ko sëñ bi mu mu faram fàcceel ñu lool li nga xamante ne euh, ak sëñ bi dama lay delloo kàddu gi ci lii ñi nga xamante góor ñi nga xam ne dañuy sàcc ay. waaw mais de mhm. xam nga xam nga balaa ñu koy jox kàddu gi. Mhm. parce que man yow li nga wax. Mhm. man eh, il faut que ma teg ci parce que day am ay circonstances. Mhm. li tubaab di naan ay circonstances. Mhm. dégg nga. Mhm. Euh, balaa ñuy jox euh, oustaz. pour mu ñëw. tojal ñu ko il faut que <coughs> ñu xam xam nga euh, daf ci am ay affaire yoo xam ne. foofu góor dégg nga bu naroon aye. ci aawam. ayewu fa. Euh, am na yu bëri yoo xam ne dañ koy wax te comprendre ñu. Mhm. loolu laa bëgg moom comme ça moom mu ñëw ci. Mhm. mooy tey jii damay jox benn exemple. Mhm. am na ñuy wax noonu xam nga dañu euh, léegi ay ay deux jours deux jours am na ñoo xam dañuy aye. Euh, une semaine waaw une semaine nangam xam nga yooyu il faut que ci foofu la ñu bëggee xam explication balaa parce que am na ñoo xam ne ndax ñooñu ñu ngi sàcc. ñoo ñooñu ci sàcc bi lañ bokk mhm. wala sàcc ñi xam nga yooyu mhm. mooy question yi nga xam ne bëggoon nañu tey ji am chance boo xam ne oustaz ñëw toog fii mhm. mu tojal ñu waxaan ñu ko mais ay boobu moo xam deux semaines ngay ay fee yaa xam une semaine mais bu dee dangaa war a ay ci sa aawo lënd ba lëndi si non bu fekkee ne sa aawo ko moom jox ko ko ba mu mat boo demee faneen ci biir ayam rek sàcc nga sàcc nga sab ay yaa xam kii gën a joŋe wala kii gën a xeeñ ñu neex mm. yaay waa ah, ah, léegi bu fekkee waa léegi bu fekkee sa liggéey. Mm-hmm. yow sa liggéey. Mm-hmm. dama lay jox benn exemple rek. Mm-hmm. loolu loo moo tax xam nga euh, loolu am importance. léegi yow yaa ngi liggéey dakaar yaa ngi liggéey Dakar. léegi yow weekend wax ngaa dem euh, sa ñaareel Saint-Louis. loolu ngeen loolu ngeen jàpp. nga ñëw ba ci weekend bi nga am euh, maanaam maanaam. Mm, empêchement empêchement. léegi nag nooy def. Mhm. waaw jërë ngeen jëf euh, lu mat a waxtaane la ndax lislaam moo maye takk ay soxna. Hmm. yàlla moo ne fankixu ma taaba lakum min annisaai mathna wa thulaasa wa rubaa hmm. fa in xiftum allaa taadilu fa waaxida takk leen ñi leen daggan a takk ci jigéen ñi ñu daggan ngir ngeen takk leen fekk na boobu xëy na góor jël na benn ba noppi mu ne ko ñaar ñett ba ñeent mm-hmm. ba ñeent su ngeen ragalee ne du ngeen maandu bu ngeen amee ñeent soxna mm-hmm. yow xam nga ne mënoo koo yor mooy li may wax ni am na góor ñoo xam ne quatre giga lañ ñii trois giga ñii deux giga benn giga <coughs> ki nga xam ne capacité benn giga la suñ borom ne ko yemal foofu mhm. mooy bu fekkee ne mënoo yor ñaari soxna yemale leen mhm. mais yemale baat bi dañ koy tudd mais tollale la lislaam digle mhm. mooy ku ne li mu tollool mu ne bu fekkee ne mënoo tollale nga yem ci kenn kon lislaam mi la may nga takk ñaari soxna bàyyiwu la gannaaw boo ko takkee nga koy doxalee nu mu la neexee mais moo lay accompagner waat bi nga takkee ñaari soxna. Mm-hmm. wax la naka nga leen di yoon <coughs> lislaam ay benn guddeeg benn bëccëg la ko séddale. Mm-hmm. lislaam su fekkee dañ ko ko bàyyee rek amul waxtaan <coughs> ku góor ki mm-hmm. benn fan lay jox ko jigéen ki eh, aawo benn fan lay jox ñaareel delluwaat ci aawo l'islam noonu la ko tëralee. Mm. benn benn. benn benn waaw ba ma laa wax déglu rek déglu ko. léegi bu naree ëpp benn. Mm-hmm. léegi consensus mooy am. Mm-hmm. mooy bu fekkee da ngeen ne benn fan doyul. ñaari soxna yi. góor du organiser ay. <laughs> góor du ne fii lay nekk ñaari fan nekk fa la ñaar. Mm-hmm. fii lay nekk benn fan nekk fa la ñaar la sañ. ndox loolu la ko lislaam jox mais bu ko naree ëpp. ñaari soxna yi ñooy waxtaan lu ñu dëppoo ku góor ki fekk si leen ci. ah c'est pas au mari de décider wala mu waxtaan ak soxnaam. Eh, ñaari soxna yi ñoom ñooy waxtaan. Ah. xëy na nag société bi ni mu mel léeg-léeg ci xaj ak muus. ci mm-hmm. ñaar ñooñu. Mm-hmm. ku góor ki kon mën na jëli information yi dajale. Mm. aawo ba nee na ñaareel bi nee na est-ce que ñaari fan gënul est-ce que ñett fan est-ce que ma nekk fii semaine moom kenn mm. bu ñu dëppoo ci loolu. Mm-hmm. l'islam daf koy valider. Mm-hmm. léegi nag loolu mu validé nag ci la sa thème bi di amee solo mm-hmm. fa sàcc ay nag di duggee mm-hmm. bu ñu nekku ne ñaari fan amoo droit ayewoo ci aawo di fa naanee ji ataaya ñu dàq sàcc ay senegal mooy gars yi xëy <laughs> da ngay xëy Walf waa Walf baal ma waaw Europos jot na une salmaa ngi fii ci wet gi nga baal ma mu ne la jaar fi naan ataaya noonu la ñuy mu ne la jaar fi naan ataaya nga ne ko non mun la naan ataaya rek la <laughs> madama nga zag mbaaw zag mbaaw ak fii nii heure bi xanaa doo dem nag ci mbedd mi di fa naanee ji ataaya te ma nekk fii ci sawet mu tegal nga ne ko pourtant dëgg la mun la boo boo ñëwee mun la xanaa doo naan ataaya te añoo hmm. tegal lam añ ah koo teg ku la tegal añ tegal la ataaya mm-hmm. Mm-hmm. nee na la ataaya ji ñoragul mm-hmm. kaay jàll ci biir noppalu def njegenaay waaw tubaarikaala jaget na fa mbir ya di di di doye waar <laughs> kon foofu dañ ciy dégg oustaz ni sàcc ay du rek dem fanaani ji déedéet heure bu mu mënti doon xam nga boo demee ci muqaddimatul aziya ñu jàng ci daara ji xam nañu téere boobu dafa am benn chapitre boo xam ne uniquement ci ay lay wax mën naa ne mooy ñetteelu téere ci yenn programme daara yi mhm. yi ñu jàng ci daara ji ci xam-xam mhm. boo jeexalee laxda wala ñeenteel bi laxdari yu asmaawi ibnu asir muqaddim mhm. laxdari yu teretewul lu jëm ci wàllu ay ak sëy euh, asmaawi yu teretewu ko ibnu asir teretewu ko mais muqaddima moom moo ñëw di wax ci wàllu sëy daf ci wax niñ koy takkee sart yi ba yegg nag ci buntu ay mu ne dafa war ci góor gi yor ñaari soxna mu maandu ci seen diggante ndax yenent bi wax na ci benn xadis sallallahu alayhi ne képp ku am ñaari soxna mhm. nga jeng ca kenn ka bàyyi ka ca des mu ne ëllëg yowmal xiyaam boo dekkee sa genn wàll gi dafa paralysé mm. Mm. góor ñu bari yowmal xiyaam bu ñu dekkee dañuy weng dañuy wengal <laughs> ni ñu wengale woon ay bi ñu wengale woon ay bi léegi nag ci lay toje maandu ba yegg ci ne daganul ci góor mm-hmm. mu aye kër ñaareel wala néegu ñaareel mm-hmm. ba ayam jeex mu fàtte fa mbaxanaam dugg fa di ko jël xam ngeen wala mu fàtte fa portable mu dee jamono jii mm-hmm. dugg fa di ko jël ni nga war a def mooy sama portable fàtte naa ko sa néeg taxaw ca bunt ba mu jox la ko mm-hmm. sama portable fàtte naa ko sa néeg taxaw ca buntu kër ga mm-hmm. mu jox la ko bu waxtaan amul am na ñoo xam ne nag ba tey li may wax ci consensus bi mm-hmm. ñaari soxna yi mën nañoo waxtaan libeere la ne la du suñu problème ku nekk nga dugg néegam walla nga dem këram tey aawo bi mën na may borom këram ci soxnaam si nekk fii ci wetu Walfadjri mu ne ko bu heure añ jotee garaawul jaar fa nga mais. jaar fa nga añ. nga añ voilà ci añ bi rek lay yem. taroo ataay waaw. doo doo kon doo ko jege. kese añ la mën na imam mu leer. jaar fa nga añ. <laughs> mais di nga ko nuyu. kon nag waxoo nuyu ba foofu lay daje. nuyu de ah, léegi jaar fa ci añ rek la yem. waaw ci añ rek la yem. su boobaay yow la la lislaam tere woon ci mënoo dugg kër ga. Mhm. ndaw si may na la comme ndax li tax. Mhm. lislaam indi loolu mooy dafa bëgg tollale gi. waaw. mooy bëggul nga jël droit kenn di ko xañ ka ca des. mais oustaz est ce que nag nañu waxante dëgg rek tolloole est ce que mën na nekk tamit. waa tollale mën na nekk dañuy que boo amee sa ay sax ñi nga jur sax dina koo xam ne amaana euh, sa xol ci kooku lay gën a féete. Mm. dafa am ñaari baat muy tollale ak yemale. bi nga ah. wax mën na nekk. tolloole mën na nekk. Mm. yamale moo mënta nekk. d' accord. yemale mooy mbir mi na yem ci digg bi. Mm. sunu borom dane fa in xiftum allaa taadilu fa waahida wala beneen beneen beneen laaya. Mm-hmm. Euh, mooy. walan tastatiu an taadilu bayna annisaai walaw walaw xarastum falaa tamilu kulla al li fa tadaruha kal muallaq mënu leen a maandu bépp maandu ci jigéen ñi mënu leen a maandu ci jigéen ñi àttanu leen ko waaye nag bu leen jeng bépp jeng bu leen jeng bépp jeng bàyyi kenn ka mu mel ne lu ñu soxlaatul loo xam ne dañ ko jëriñoo ba amatuñ ci soxla lu tax ñu ne tollale ak yamale mhm. tollale mooy ku ne li mu tollool nga koy jox mhm. yëg ne boo takkee soxna fekk ko ci dund bu luxe mhm. exemple dañuy reeree mis wi nga takk soxna fële ñoom dañuy reeree cereeg baas yi lislaam dana la boo jëlee kële ci cereeg baas yi indi ko ci mis wi maanu nga mhm. waaye boo jëlee kii ci mis wi indi ko ci cereeg baas yi bu fekkee ne mayu la ko mhm. maandu woo da nga ko war a dundalee mis wi mais oustaz côté boobu aussi am na benn sew sew parce que nag mhm. bu ñu xoolee am na ñoo xam ne amaana euh, ñu ngi sëy ak seen borom kër bokkuñu en fait ay kër kii am na njaboot ak moom kële amaana njabootagul est-ce que mm-hmm. bu boobaa boo côté dépense boo koy joxee war ngeen mën a tolloole moom laa doon wax ci laa nekkoon di di ci ñëw ci sa mm-hmm. ci sa question bu njëkk bi la mm-hmm. dugg moom lay wax tollale ak yamale yamale mooy bu fekkee ki yor na ñett doom ki yorul doom ku nekk li ngay jox mor sa morom nga koy ndax da ngay tollale mooy kii yaa ngi koy jox dépense su dix mille ki am ñeent doom ki amul doom nga koy jox dépense su dix mille l'islam sant la loolu hmm. loolu mooy tollale hmm. mais lislaam li mu la sant mooy yamale al adlu huwa al insaaf maandu gi l'islam di wax moom mooy tollale mooy ku ne li mu tollool nga jox ko ko hmm. <coughs> soo amee soxna su njool ak soxna su gàtt doo dem di xotti ne dama leen di tollale dañ ciy nettali ci côté boobu lu xoromu ñu ne waa ji dafa yor ñaari soxna. Mhm. kii am yaram lool njool kii gàtt lool tuuti. Mhm. léegi nag ki gàtt di revendiquer fu mu toll danga nga war a yemale. Mhm. waaw loo ko defal danga ko war a defal. bi mu demee ba forcé ji waa ji ba mu toll foofu. waa ji bàyyi ba korite jot. mu dem di xotti yére xottil kii 5 mètres moom it mu xottil ko 5 mètres te moom 4 rek koy doy. dem ci téyeer ba ñawlul leen. ñaw ya tolloo. Mhm. mu dem jëndal ko dàll dàll ya tolloo lépp mu tollale ko. problème ba démarré na. <laughs> léegi ñëw indil ko mu sol ko bosom di diree ko mu ne ko mais sama yëri yow lan moo tax nattaloo ma ba mu tollook man mu ne ko yow yaa mu wax ne ma naa yemale. Mm-hmm. dëgg la de. yamale naa. nit da ngay de mais lan moo mën a andi. te tollal la waroon doon ku ne li mu tollool. nga jox ko ko loolu la lislaam wax. bëgg naa ñu ñëw ci lan moo war a mën a indi ba muy ba muy def loolu ba muy. sàcc bàyyi ñu tëjee foofu ma laaj ko. ci ci diine bi moom moom ma tëjal ko. après après ñu pelloo foofu tubaarikaala mm-hmm. ndax féroce moom il faut ñu dugg ci jonge bu baax. ok euh, euh, euh, sang bi. Mm-hmm. bon dafa am doom ju xaraam. am naka fan lay sosoo. Mm. laa bëgg a xam. waaw loolu yenn fuqahaaw yi ñoom ñoo koy faral di wax dañuy wax euh, ibnul xalaal ak ibnul xaraam ibnu mhm. zina ibnu zanim dañuy wax ibnul xalaal mooy doom ji dagan mhm. mooy doom ji nga xam ne nii dafa juddoo ci buum mhm. alxayri alxayri la juddoo ci sëy boo xam ne nii lislaam reconnaître na ko ku góor ki ànd ak soxnaam waxtu wam waree ànd ak moom sàcc ay duggul dara duggul ñu ne doom jooju mooy doom ju dagan mm-hmm. am jeneen doom ñu tuddee ko ibnu zina <coughs> ibnu zina mooy doomu njaalo mm-hmm. doom joxam ne dafa judd hors mm-hmm. ñu ne bokkul ak ba tey ibnul xaram doom ju xaraam ñu ne doom ju xaraam yenn fuqahaa yi dañ ne mooy lu mel nii mooy góor gi nga xam ne dafa sàcc ay sàccal ku jigéen ki ay heure bi nga xam ne nekkul heure ayam. Mhm. mu dem ci ko jigéen ka ànd ak moom doom sosu ca ñu ne doom jooju ibnu xaraam la. Mhm. maanaam doom ji dafa xaraam. Mhm. mais nag dana doon ci sharia. ndax doom la ju sharia di reconnaître. li tax ñu ne ibnu xaraam foofu mooy doom ji juddoo na ci lu xaraam. sàcc ndax bàyyi ja dafa dem ànd ak yaayam. ci waxtu woo xam ne lislaam daf ko ko interdit. ne ko bul ànd ak moom ndax bi mu ayewul lislaam daf ne ko bul ko jege. Mhm. ndax moomu ko léegi nag bu ca doom sosoo sharia dana ko jox dafay doon mhm. mook ibnu xalaal ñoo bokk benn àtte ci sharia mhm. waaye nag fuqaha yi dañ ne waaja def na lu xaraam ba doom juddu ca moo tax ñu ne doom jooju ibnu ibnu xaraam la. doom ju leer na foofu léegi su ma paree ñëwaat sa question parce que ñu demaat sa question rek daa am leen luñ ko bëggoon laaj mais temps moo ñu moo ñu ko doon may. mu ngi noonu parce que tamit dañuy wax naan boo boo boo gisee amee ngànt ci sa pëy sa borom kër waru waru faa jege warta jege sa pëy parce que yaa ngi ci ngànt mhm. mais flirté beeg foofu ak loolu noonu ñoom mécancé yi sa yooyu dagan nañ suñ bu jëkkëri waa dagan loolee laay laaj jigéen ju am ngànt dagan na borom këram. Mhm. akolaat ko mu akolaat boroom këram dagan na. Mhm. lislaam dana li tàmbalee sa jimbax ba ci sa bëti om lañ la interdit. Mhm. lañ interdit ku góor gi. fekk ngànt gaa jimbax ba ci bëti om. mais fu dul foofu fu ko neex mu bànneexu ci yaramam. bu ndaw si amee ngànt. Euh, Salma Ibrahima. Euh, gis nga xam nga dañ naan yàgg fi na daaw sax fi na ceebate kenn du la gërëm. tarbiyu la. sa jëkkër yaa koy téye yaay nootu nooy gagné confiance am. Mm-hmm. parce que tamit sàcc ay ay ay am na lu ko waral. Mm-hmm. sëb la lu ko bënn nga ca biir. Mm-hmm. tubaarikaala parce que ñun jeunes yi nag suñu génération bi tubaarikaala danoo féroce. parce que boo amee sab aaw am melokaan woo mën a mel tubaarikaala mu tase xale bu baax élancé jongo ma lool. mel ni anaconda ci saw yaram yenn saa yi mu baratu ko sàccaale ay. mën naa nekk. il faut ñu comprendre rante bu baax a baax. du bonu ko góor ki waaye du bonu ko jigéen ki. kon lépp ci ñun la. jange la. say deux pièces lépp a ngi saj ma ne yow may ñu nag jonge boobu lépp a ngi nooy oustaz wax na ko sa jonge ma lépp a ngi nooy non non non amul jonge amul comprendre damaa génn dama ne l'islam li muy tere naa ci ku tedd non non attends l'islam li muy tere dama ne euh, non non non non c'est que yow li nga bëgg a wax dama lay ah, laaj fàcc ay bi xam nga lu koy waral pourtant mi ngi si point bu am am waaw non non non doo dégg la ma la parce que man dama déglu euh, oustaz mhm. bëgg bu sax moom mu naan ay ay ay ma ne waaw jamono diina lan wax wal fu doon lay doxee jamono diina la fi Sidy Lamine wax ñun ñëw na leen ci diina waaw Ah, nekk nañ ci diine dañuy dem ci jamono. Ah, yaa de woo yaa de ba en fait elle veut dire. parce que ah, sàcc ay conséquence la lan moo induire góor ñi tey. <laughs> bañ war a a sàcc ay je pense que si loolu la munaas nekk. waaw cause bi cause bi lu war a mën a euh, pousse góor ba mu war a mën a sàcc ay. def ko waaw ñàkk ña euh, ma ñàkk a toppatoo. non non ñàkk xam diine ki tere. <laughs> dañoo xiif boo xamee sa li muy tere doo ko def. dama ay sàcc yooyu sàcc bu. waaw waaw. nit matul nit manul mais yow tey jii boo amoon ni nga sàccaane di nga bari su ko dama ni ñu la takkalee bovet di la jox nga lekk su ma ñëwee gisal ma mu may laal sama xol lel dal nga xalaat yàlla di ma toggal neex may lekk nga xalaat yàlla bu may nelaw kenn du ma yee te eh, damay barastiku de dama jox la sant de looloo ko waral jeeg ji nga xam ne toppatoo wuñ seen jëkkër yi daal góor war ta xiif góor war ta mar nañuy jël góor ñi di leen sang di leen teg ci kaw leen leen teg peñuwaar di leen dalal seen xel parce que mënoo nekk ci àll bi di liggéey wii monsieur sa jëkkër sonn ba bëgg a dee bu ñëwee ci kër gi du am satisfaction mm. xam nga lu ma la wax ay jëkkër daf maa trahé takkal na ma nan ko bàyyi dañuy takk uqale mm-hmm. suñu diine moo ñu ko may mm-hmm. takk leen ci soxna yi mm-hmm. bànneexu leen seen soxna yi dem leen ci comme seen i tool am ngeen droit takk ay soxna ni ko suñu borom bëggee ngeen defee ko noonu donc nag bu fekkee ni yow miy jigéen da nga bëgg a fiir ni sama jëkkër du takk wala du lii def naa boo fiirul tey toppatoo woo ko bu amee xale keroog bu ayee dina fa dem jël pause dem seet si naan attaaya waale yàlla dëgg se ñu sax dëgg la mun naa si nga wax am na solo mais aussi ñoom aussi góor ñi aussi je pense que war nañ am mat gu toll ni aussi mhm. parce que jigéen moom ku ne xam na gis nga takk bees moom boo ko takk euh, mhm. loo xam ne takk nga ko bu yàgg <laughs> takk nga euh, sa xale bu ndaw xëy na euh, amaana di nga xaw a jéngu tuuti mais yow aussi yow ki nga xamante ne mooy soxna si aussi yow ki ñu takk aussi am na mhm. posture boo a am mhm. bu fekkente ni dañoo sàcc ay ñëw si yow comme ni ko oustaz waxee da ngay xalaat aussi sa ah, mhm. xamante ne danga ko fay am waroo toog bu amaana neex la wax am naan ataaya ko la doyaloo mais li mu wax aussi gën a ñaaxaat ñu def soxna defar suñu toogaay toog suñu borom kër boo toogee ba yow yow yéen ñaa ñi am na kenn kenn koo xam ne war na am xel. man bu ma ñëwee di ñëw ci marème di sàcc ay foofu. marème war na ma ne ah, déet. demal parce mhm. que euh, euh, diine bi lii parce que ba nii seytaane mën nañu kii bi bisaam doom juddu fa. Mhm. comme ni ko euh, Oustaz wax. waaw loolu nga fay bay loolu nag ma laaj leen conscience nit da ngay am xalaat. Mhm. waaye yow mi comme ni nga société bee oh, eh, baax. nga topp ko teg ko léegi may sa nawle mu may santaat may santaat oustaz si li mu andi doom ju araam mhm. ñu xam ni ci wujje leen koy jëlee uh-huh, parce que chaque jour dañuy dégg naan ñuy ñu ni saaga la du saaga mhm. suñ nee doom xaraam rek ñu naan kii de ay dafa saaga du mhm, saaga loolu olof moom li ma dikkoon laay dikkaat ci moo andi ci tekki bi ni nga xamante ne rek doom ju judd da ngay raam dëgg la buñ nee kii doom araam la ñu ay doom araam lañ buñ ko waxee si beneen laat araam bi loolu la Euh, am na solo bu baax a baax Mounass Balde sa thème bi nga andi vraiment c'est d'actualité ah, te euh, sant nañ bu baax aussi ba ko oustaz fekkee daan mën a gindi bu baax a baax ci point de vue ah. mu nekk solo ah. yow ñëw loolu dañuy def comme d'habitude yow de toute façon gauche ngay génn jël comme man damay waa ngeen di jokkoo loolu dina am solo bu bu a baax ñu lay jaajëfal mm. waaw mi ngi noonu mu ngi noonu su ko defee dañuy sant maa ngi laan la euh, doomu soxna Aïda xaritu maxu ma maxu mii la maanaam mm. maxu na ko jël mooy Fama Saliou doomu Aïda mu Serigne Saliou tey la anniversaire am mm. moom it day wujje nekk jigéen bu baax mat na ko la demee di gërëm oustaz bu baax a baax di ko ñaanal yàlla na dund mm-hmm. di barke wasilaam bi mu yaakaar amiin yaa rabbi lay ñaanal nga dund te wér bu baax a euh, ñu ci porox loolu rek di la souhaiter Fama Saliou ah euh, un happy birthday ak waa Alburax yëpp ñu leen di bu baax. <laughs> sa waa kër lañ gis nga tubaarikaal da bu jéego ci dafa doy waar. sa waa kër lañ. di di di nuyu waa Alburax Aziz Ali Ndiaye kenn dootu ko fàtte bàyyi ma kenn tubaarikaal Baye Ndiaye doomu ndey Gibson production ah, bàyyi ma ah. kenn. am na solo bu baax a baax fi les téléspectateurs donc ci noonu dañuy doxantu ba ci mode tendance rek ak la belle Mariem